isani jirɗa a sibaw jan oho oh. sene ngi noon di def ay débat débat ojo palmare <laughs> weyay yaxu felo fils de Khoudia Ndour Sika Mbaye la Khoudia Ndour doomam jaangi ni borom januar mama sukayi jirɗa a sibaw jan

Bicruz tawi Asbaou Diane la ilaha illallah doomu Palmarin si porte bi eh, eh. ak xam mooy doomu Betenti waaw waaye tamit us technicien Marlo Dieng sa ginnaaw di ñëw gaa yi nii dugg seen doon num demee nii baasul ehe eh. us a ngi noonu us technicien us naa ñuma waaw waaw amee da ngay sottee mu nga noonu di jàtt moom amee double moteur laa ilaha illallah dug rouge oho oh. waaw nay tooy de waaw waaw ous technicien yi noonu si porte bi ñu ko Ousmane naa ñumma dug bu betenti may nuyu sama doom ji galas caare Seydi Fatou waaw waaw lay lay la laa yàqu naa Amel yàq na sama tubay ja dégg naa ñu ni yére bu weex du ñëw lamb waaye dëgg la puus naa ñu ma Amel a ngi noonu ñëwaat na juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent i doomu Diofior non ngi noonu ndeysaan waaw waaw jëwrin bu la laa ilaaha illallah may nuyu sama mam ja yaay sa fay yaay Seeku Njaay yaay Baabu Njaay yaay Adam Ba mam Ibu Njaay ak Maas ak Fa ak Aysatu ehe ayo abdul Abdou Ngoné maa ngi ziar waaw waaw maam Aïssa Faye du mako ko way Ibou Kaliñ ma ngay ziar ndaysan El o oh, seri Aji ma ngay koy Ismaïla Moron danan bi si Diofior bégee naa ko yo jëwrin borom yor acha te ci sarak ada gala asam ma sala macha donte ensemble ko solo ay bu legge bu ensemble nang ko wodo acca gën a gën uhu noonu rang mi suus doomu Diofior bi